ñoom ñaar jéggi na su yor jël na Tapha Tine na Tapha ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention kaw Sa Thiès Boy Niang daan na felaat bu baax di am contentement ak mbégte jano ak yéen chaque jour revue bi nag dinañ koy indi chaque jour mooy suñu yitte bu baax bi ci jubee rek dañuy kontaan pour jano ak yéen chaque jour Mbaye Babacar soo ma fayee ñu daal di ñëw jukkil leen di gën a fas ci xibaaru làmb eh, jërëjëf fajaratu Ndeye Mbacke Diop fay naa la nuyu bu baax a baax suñu xarit yi nga xamante ne bii jamono bii ñu ngi ñuy topp ci Leewtoo TV ñaanal leen jàmm ak salaam di ko sàkku ci ñoom saa su bu baax a baax te noonu nag revue de l'arène bi huile Jador moo leen koy may ak gambu complet boobu mu àndal o Kayar ndox bi ñuy aar suñu partenaire la mar mardi 15 juin 2021 journal suñu laab la ñuy xëyee la mu xëyee na ci xëta bu njëkk mooy kii di Double Less gravement malade ginnaaw bu mu tëddee ay weer Mbaye Babacar ki nga xamante ne bii moom mooy euh, ndongo beey ak Pape Faye bu Caaroy dem seeti ko waaye ba ñu génnee kàddu yi ñu njëy yëkkati mooy Double Less fi mu toll nii état de santé am jaaxal nañu baree baree bare ba tax na am na jafe-jafe wax sax yëkkati doom yenn saa ay wax day amee day amee jafe-jafe wax ko ma nga nag kër Masaar ci benn kër doomam bu jigéen ba nga xam ne moom moo koy toppatoo suñu papa Double ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yëkkati ko ci jàmm ak salaam yëkkati képp ku tawat suñu papa Double Less ñu koy ñaanal jàmm ak salaam yàlla fëgg boppam ak mbooloo mu jullit ca noonu nag Franc Tyson numéro 2 choc bay am nag le 19 bay Babacar ñu ne làmb ji dina dajawaat beneen choc bu bees. Arena Vox ñoo ko taxawal ki ko jiite moom mooy moom ma du juuf incha allah gannaaw ba arène nationale dalale combat bu mag. diggante Lac de ak ki nga xamante ne bii moom mooy Eumeu seen ma ngay waaja daral beneen combat ba nga xam ne nag amateur yu bëri ñu ngi ko doon gént doon ko xaar muy dox ci diggante Franc ak ki nga xam ne moom mooy Tyson 2 di combat bu neex di combat ba nga xamante ne bii incha allah le 19 mën nañ cee gis xeex ak bëri. ca noonu nag Fass Ndakaaru lañ jëm ak seen coach boobu di suñu papa Katy Diop lañ cee xam ne rek mooy am na expérience. am na xam-xam te yàgg na ci milieu bi may Babacar. ñëpp nangul ko ci làmb nekk ka nga xamante ne bii su àddoo ñëpp dañ koy déglu Amadou Kati Diop gannaaw ba écurie Fass ak Ndakaaru booloo muy benn écurie seen première sortie nag ci weekend bi paase la woon diggante samedi ak dimanche seen ñetti xele ñi ngi doon bëri mais trois sorties trois victoires la ñu def kon mën nañu wax ne seen première sortie bi baax na trop ñetti xele yi doon bëre bokk na ci ki nga xamante ne bii moom mooy euh, général de moom dafa am ndam bokk na ci caatu Fass ak ki nga xamante ne bii mooy caatu montagne ñoom ñetti ñëpp seen première sorti dañ cee jële ndam kon mën na na wax ne Fass Ndakaaru fi mu toll nii lancé bi baax na. te loolu nag ci Boy Niang numéro 2 lañ jëm le fils de Dégol borom curuxu curuxu ba mu bëggee démolir kii di Tapha Tine le géant du Baol daal di koy daan neen nag lam ca nar bu ko ci jëm ba tax dafa génn Sénégal dem fi nga xam te ne mooy Gamzu Mbaye Babacar ca Chine pour préparer combat am weer la fa fas yéene am incha allah bu ci yàlla àndee fekki benn coach bu ñuy wax link bëgg a yokk cere dolli ñeex ndax ki muy jàkkaar lool moo toll noonu muy tafaatin nee na daal dafa wuti li nga xamante ne bii moom mooy kàttan ngir bu jàkkaarloog tafaatin mën a jëflanteeg moom ci anam bi mu ko bëggee. bu ñu jógee ci tafaatin dañuy dem ci le géant du Bawol ba seen face to face ba yàqoo fay ca cosaan la muy xëy di xam ne nee na du wax ak kaam du wax ak kaam booy ñaar waaye ka dut baaram nag mooy Pape Thialis Faye di promoteur ba. li tax mu wax loolu mooy sécurité moo amul woon ci face bi amoon ba barki démb fële ca cosaan night club nee na 23h ba 0h ay xeex ak ay jàppante la fa nemmeeku woon loolu moo tax ñi mu àndaloon mun a leen na leen ñibbi kon nag ki muy duut baaram du kenn ku dul ki nga xamante ne bii moom moo tëgg làmb ji organiser face à bi di paccaalis Thione nag dañuy dem ba Gambia people ak jam sa production jamaïcain xaleb làmb boobu ginnaaw ba mu fa tëggee làmb ju mag ja kii di lëkkat baara nag moo fa daan France Mbaye Babacar ci jël ba nga xamante ne bii bëri na jiixi jaaxa trop bëri na polémique tamit diggante France ak leket baara parce que combat bi ci quatre appuis la jeexee ñi nga xamante ne bii ñoo ànd ak France nag ànduñu ci verdict bi nga xamante ne bii arbitre bi joxe na ko ba tax na ñoom nee nañu daa ñu dugal recours ngir ñi nga xamante ne bii ñoo saytu làmb foofu ci Gambia ñu saytuwaat combat boobu bu baax a baax combat bi mu ngi amoon ci stadium euh, bu Bakaw nekk foofu ci Gambie. lu ci mën a am nag dinañ xool lan la wane mujj ak gërëm ca noonu nag Adrien Senghor lañ dem seen septième journée kii di Ngagne Sène ginnaaw ba mu daanee Mouhamed Bousso ñu ko booy fay uh-huh. dàbbaliwaat daal di daan Mbaye Diop Mbaye Babacar. mu nekk cinquième galaam la fa jël gannaaw ba mu jëlee Joal ñëw na jël adresse Senghor jël cinquième galaam euh, nekk xale ba nga xamante ni bii la fanceur yi da njaga ñaaw journal bi nee na naka mbër yi bàyyi xel ndaw la wante mi ngi ci yoon mi ngi ñëw. am na juróomi galaa ya nga xamante ne bii dugal na ko ci poosam wante ki nekk ci kanamam moom mooy xaddaafi euh, ñu naan ko. Doudou Sané am na juróom-ñaari gala moom jël na ko moo ki nga xamante ne bii mooy Ibou Ndiaye Obli moom tamit am na juróom-benni gala wante ngañ seen mi ngi seen gannaaw mi ngi forcé pour dab leen. kay forcé pour dabe nag Mbaye Babacar mooy bulldozer ginnaaw ba mu jógee ci ay combat la muy xam ne nag mooy ki mu visé jël bëtam te ko ci kaw mooy doomu Boy Kayra ba di Diène Kayra neen daal moom la bëgg instant bi nee na bu amul Diène Kayra bu amee gàmmu gay baax na ñoom ñaar ku ci ñëw rek ku ci tooyal xaftaanam rek mu bëree ak ñoom nee na Euh, jën kayre dafa andi rakkam mbañi kayre jox ko ay conseil ñëw bëre ak man ma daan ko kon jën kayre war naa mën a jëlal rakkam boobu nga xamante ne bii moom mooy mbañi kayre revanche ndax bëre na ak moom daan ko te jën kayre bu muy bëre ak Modou Anta Modou Anta moo ko jiitu ci làmb mais daf ko may sens kon jën kayre war na gestuñu ci gannaawam may leen sens bëre ak ñoom loolu moom moo tax Bulldozer na fi mu toll nii tegul bëtam fenn fu dul ci ki nga xamante ne bii mooy jën kayre ñam mayeen de chance nag ba nara a jàkkaarloo tey jii seen face to face Mbaye Babacar mooy professeur Mané ak Sa Ndiambour diñ mbëkkante ku nekk wax sa morom li ñu ko bëgg a wax Ousin production moo taxawal boobu le combat nar nekk combat bu neex nar a nekk combat ba nga xamante ne bii combat jànq lan parce que ñoom ñaar ay espoir lan diggante professeur Mané ak ki nga xamante ne bii moom mooy Sa Ndiambour tey bu ñetti waxtu jotee ñu fas yéenee jàkkaarloo foofu ca Walfadjri incha allah bu ci yàlla àndee beneen face to face ba am démb neex loolu saf sàpp tàng jër bu doon dox ci diggante Big Pato Baye Babacar suñu pëlisé ba ak wulli wulliwaat lam ci xam ne nag mooy Big Pato bu taxaw dina ko dóor ba mu daw la ca gën a doy waar wulli bi muy ñëw ci li nga xamante ne bi mooy face to face bi policiers yi dañ ko jàpp ci yoon bi mu daal di woo Big Pato ne ko sa naataango yi jàpp nan ma Big Pato wax ñu bàyyi ko mu ñëw bi mu ñëwee nag dafa mel ni dafa fàtte loolu lu mu waxul Big Pato daf ko fàtte ndax nee na ko maa la daanoon su ma jàkkaarloo waateeg yow dinaa la daanaat Big Pato nag euh, mel ni lu am njàqare ci combat bi ndax nee na man xaw ma lu ma def yàlla moom sax woo na yàlla nee na yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay woo ci combat bi nga may ma ndam sama diggante ak wulli ndax sonal na ma trop fu mu toll danaan daan naa big pato su ma daanaatee dina nekk la nga xamante ne bii lu ñaaw ci sama der la ba tax na mi ngi ñaan suñu borom mu defal ko ndam ci boobule combat lépp nag mi ngi amoon fële ca hôtel Radisson. li ci gën a neex mooy da naan maa daan daan policier dóor policier du fayu <laughs> loolu neexul ah mbay. <laughs> doy na wulli amul kenn du moom. dama ko jaajëfal bu baax moom Mbaye Babacar loolu moo nekkoon li gën a fas ci xibaaru làmb Mbaye looy tàggatoo eh, xanaa jaajëfal ñëpp jaajëfal ñi nga xamante ne bii ñu ñu ngi ñuy topp ci eh, Leewtoo TV am mbégte ak contentement saa su ne ci ànd bi ñuy ànd ak ñun wante jaajëfal bu baax a baax équipe technique bu Leewtoo TV yëpp ndax boo leen gisee liggéey bi fan yi ni mu gën a progressé ni mu gën a avancé ngeen xam ne ñoom seen liggéey moo nekk ci gannaaw ñun dañu nekk ci kanamu écran yi nii di wax rek wante ñoom lépp ñoom la muy équipe technique bi nga xamante xamante ni bii ñoo nekk suñu gannaaw wante Ndeye Mbacké Tapha Tine Boy Niang le 8 août la. loolu du mën a yomb waaye laa taaleel face to face yi ñëw li amoon du woon ami waaye di nga gis ambiance spectacle macha allah li Pape Thialis Faye waajal nar ko ci événement bi ay ko de mbay. waaw ku ko tardé moom mu yow laay yërëm ndax dina nekk événement ba nga xamante ne bii dinañ ci gis ay euh, ay innovation yu bari ndax euh, Leewtoo production ku ko xam ku ne xam ne ci innovation rek lay dox Tapha Tine Boy Niang ngeen nar cee gis la nga xam ne ci ku boobu combat rek ngeen koy gisee. taaxir leen léegi nii damay felaat bu baax ah, sama équipe bi baam ba moo papa la bégee bu baax a baax yaa seen Fall kontaan naa ci yéen noonu lay def rek jox leen dig daje ci Leewtoo TV di leen ñaanal jàmm ko sàkku ci yéen.